alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifad bifurud wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني mbokk yi jàngeen jëf seen site d'information groupe de communication Saxum Touba TV wala saxumtouba.net nemmeeku nañu askan wi nga xam ni ñoo nekk ci kaw gi kaw gi nag mooy dëkk yi nga xam ni ñoo féete taax yi ginnaaw fii nag ci département bu Mbacké ñoo ngi fii ci Bombali di dëkk boo xam ni dëkk mu am wàccuwaay la ci yoonu murit ñu gis ni dëkk boobu di Bombali comme yeneen dëkk yi bootu ci département Mbacké ak yeneen gox yi fii te kaw gi doon nañ dëkk yoo xam ni mel na ne askan wa naam gëm seen bopp ak gëm seen cosaan moo tax ñu toog fa wante lay tax doomu aadama yi toog ci gox mel na ne kat nekkul ndaxte tumuraanke nañu loolu ay jumtukaay moo xam lii di bërëbu fajukaay moo xam ay yoon yu baax moo xam ay marché moo xam loo xam ne dañ ci yaxantu ba am loo xam ne dañ leen jural am comme seen nekkin yéwén mu mel ni nag bu ñëwee senegal senegal taax yi ci lañ wante kaw gi moo ëpp doole taax yi ndax ña ci taaxee bu ñu nekk ci jàmm ñu ci kaw gi ñoo ko waral ñu gis nag dëkk àll yëpp daanaka tolluwaay bi ak li nga xam ne muy dundit bi benn la ana politique yi ñuy nas ak programme yi nas jëm ci yokku Sénégal wala taax dëkk àll dañ cee bokkul am déet wante lii tax dundinu doomu aadama yéewén muy am ab liggéey am barabu fajukaay am yoonu baax am ab marché mais nag dana faral di tumuraanke ci dëkkee àll yi nañ seetaan nag politique gouvernement bi joyanti waat tuuti saxas jëmale ci kaw gi ndax waa taax yi ñoom mel na ni kat la ñuy am am nañ ko macha allah jiitu nañ ko kaw gi. sëñ Xaadim Samb yaay borom dëkk bi Bombali nu mu demee ak Touba digganteem ak Touba ñaata kilomètre la diggante tele bu ñuul bi ak fii rang bi ñaata la ak dëkk bi tamit lan mooy seen. nekkin fi. suñu nag ay 16 kilomètres la diggante Ranra bi ak tali bi nga xam moo jëlee jëm xel koom campagne 1 kilomètre la mu nekk ci jafe-jafe yoo xëy jafe-jafe yoon am jafe-jafe suñu case de santé bi bañ ko fi defee léegi ëpp 10 ans ñoom kenn ku fi ñëw pour ñu fajal docteur yi léeg-léeg dañ fi ñëw ci njëlbéenu nekk ñëw na fi beneen boobaa rek jaaraatu duñ fi kenn ki faj ñëw suñu jigéen ñi bu nekk ci dénkoom tollu bu diggante dañ fi dem tey fukki kilomètre ak benn ci jaar ci yoon yoo xam day naqari ay sareet yu kenn xamul la ñu takk kooku ku ne xam na ne métti na te nit ab sénégalais lañu ci la ko wutal di ñu wutal suñuy morom fii nag jafe-jafe fi xam naa daal ci tànnal lu ndaw rek waaye mënu ma laa wax lépp ndax ma la ko wax fii la ñu jant bi soye courant bii ngay gis dëgg 2014 la fi ñoom moo Grand Rail bi ñoo fi duggandoo même benn weer mais gox boo nga seen dénk maanaam amuñu ay lamp lamp yi daanaka dañ ko tasaare tasaare boo xam ne ñàkk solo ci biir dëkk bi li fekk duggoo ci dëkk bi doo xam ne boo xam ne comme courant am na fa la sa déet gox bu féetale benn lamp du fi tàkk ñaareel bi case de santé bii bëgg nañ ko ñu ci dimbali ñu ko andi fa nañ ci président dimbali a ah, dëkk bii nag jafe-jafe yi nekk sëñ Mor bu ma la koy wax maanaam bari na ci wàllu engrais bi da nga bokk na ci li nga a ñor ndax li tax engrais bii heure bii ñu ko indi da nga la ko maanaam du na heure boo xam ne moo dañ koy indi daanaka fekk bu ñu ñëw ren di palpal kooku ku ci jël engrais dem ko jox dañ ko am na te yéen àll la ñu am xamuñu lu leen te mbay mi war ñu bëgg nañ ko ñu dimbali financé nañ ko ñu liggéey ndax suñu jigéen ñii ñi ngi bëgg a dee góor ñaa ngi bëgg a dee fu ne ñi nga fa jaar ñi ngi dara bu ñu xëy dañ ko maan góor maa ngi ne dañ koy jox jur gi ñun daanaka amuñu ci ndox la mooy ren ñeenti wax ne moom ngeen am liggéey ci loo xam ne nekk tey boo ko séddale kenn wàllu gën wàllu libéraux euh, repas ko mat loo xam nga du dund kon bàyyi ko moo ko gën ma bëgg engrais bii maanaam bu dee distribution gerte gi ñu gerte gi na ko bàyyi 16 kilos du jiwu fekk borom kër boo xam ne la mu mu néew néew day mat ton ton ak nangam nga jox ko fukki kilo juróom-benn nga xëy bu ko doon ñeexu balaa mat fukki fan di nga ko a mu jeex kooku du aw jiwu maanaam sàcc yi dafa ëpp loolu dafa bëri ndax daanaka nag lu ko gën a waroon rek ci gën a lëndëm lañu gudd dugg tamit nag ndax sàcc nañ sama jarbaat bërki démbay xaram yoo xëy maanaam fan nekk dénga la ko maanaam lëndëm doo nga tax dénga te ñàkki lamp dong la mu ñaan gouvernement bi nañu dimbali li lay war sool ñun chef de village soon nañ lool am nañ tuuma sàcc si la jël nañ lool joxoon na ay ngànnaay jox na ay matukaay loolu da am gan guddi dénga boo ko teg te gan genn gu ngay am am naa fi gan goo dem keroog ba nga xam ne commande dem na ba jaaxal ma commandant brigade bi laa mujj woo ko te gan nga daa ko wóolu ndax nit ku ñëw nga ni ko am nga carte d'identité mu la amoo carte d'identité nga ni ko doo fanaan dinaa fanaan xam nga ni ko dëlim ñu ko passé. waaw di ci wax loo xamante ni lu ma teg sama bële muy réalité suuf la fa jafe ci Europe gële Europe amuñ suuf kenn gën leen bëgg bay ñoom boole man boo fa nekkee bu ma leen wax sax dëkk ba ma dëkk cosaanoo am nañ fay nangami hectare duñ ma gëm ndax dañ naan lan nga amee lu toll noonu ci suuf di fa ko fa bàyyi di tukki ndax ñoom bu loon ñoom moom dañ ci bàyyi xamante ni bii doo euh, man naa fii ba sëñ Saalu ji nga mën na deux kilomètres da nga gis benn boo xam ne toolu kese la koy bay lu toll noonu sëb kese la koy bay ci lu toll noonu waaw tamaate noonu waxee noob ndax da ngeen fii tamaate bi nga xam ne Italie lay jóge day day ñëw fii ñoom ñu di ko fi jaay te ñoom loolu yëpp dañ koy bay dañ koy bay man liggéey naa ci toolu tamaate fële Europe dañ lay fay journée dañ lay fay par journée maanaam boo xoolee rek dana mat cinquante mille da ngay xëy liggéey suba ba ngoon jot journée dañ la fay journée cinquante mille pour nga wittal leen tamaate gese parce que da ngay fii loola mat cinq kilomètres yoo lépp toolu tamaate kese la kenn nit ko moom da ngay xëy di witt ba jant bi sox bu ñu witti camion usine bi mi ngi taxaw lu ñu witti dem jaay ko usine ba pourquoi nag fii ñuy pourtant mën neen def ay usines yu diwlin yu bari fii ci réew mi ba lépp luñ bàyyi ci gerte du jaar sax ñu ko yóbbul bitim réew du jaar sax ñuy jëndi diwlin parce que mënul nekk ngay bay gerte ba pare di jëndi diwlin yéen diwlin mënul nekk pourtant mboq mi dañ ciy defar diwlin man diwlin gi may li yóbbu sama kër la ma ko faraawe waaye kon naa la fi ndaaleel bi tulli diwlin boo xam ne mboq lañ ko liggéeyee mboq lañ ko liggéeyee te Europe laa ko jëndee indi ko fi waaw. bon moo gën a mais fii nag ñun dañuy ñu yokk rek ñun duñ duñ transporter duñ liggéey li liggéey ñu koy jariñoo luñ ko def li ñuy bay lépp mën nañ ko jariñoo fii ci biir réew mi soxlawul ñu koy jaay bitim réew soxlawul ñuy jënd bitim réew dara mais loolu nag dafa aajo gouvernement bi yeewu ci yeewu nañ sax mais ñoom dañ ko bëggul def volonté politique moo fi amul. Mhm. waaw xam nañ ko ñi ma koy waxee ñoom noonu lañ ko xamee parce dem ci ay leen gis foofu Europe. ñu te jàng nañ kon xam nañ ko mais ñoom dañ ko bëggul def mais bay dëgg pour nga bay ko tracteur mooy def nga def ko et puis dañ war di bay noor parce que mënoo di bay euh, nawet kese man am na benn vidéo sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bu ma doon seetaan sëñ Cheikh xam nga bi fi jógee 78 la xam kon boobu vidéo bi yàgg na mu di ko ci wax naan bay moom bu ñu ko bëggee def faaw ñu bañ a dépendre ci taw bi mais bu ñuy bay di dépendre ci taw bi du du du du du du mus a dem loolu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma man maa ko seetaan benn vidéo mu di ko wax. waaw mu doon ko wax ca jamonoy Senghor Senghor la doon waxal sax jamono yooyu kon xam nga loolu yàgg na mu di ko wax Senghor naan ko réew mi pour mu mbay dox fi dëgg du waaju ci ab taw mbay pour mu dox fii ci réew mi faaw ñu fexe ba defal ab forage ndox mi bari ñuy bay noor ak nawet waaw bañ ko aj ci taw bi loolu sëñ Cheikh Mbaye Gaïndé Fatma moo ko waxoon Senghor boo xoolee fii euh, coté Pout gi am na benn ay naari marocain yi fa ñëw dañ fay bay xaal dañ fay bay xaal xaal bi nga boo ko jëndee Pout naari marocain ñoo ko fay bay man bu ma mos mos naa jaar ci yoonu suuf yi di indi oto muy oto bee nee boo ñëwee camion ma camion marocain yoo xam ne ñoom dañuy bay foofu ay pomme ak ay mandre yi di ko indi fii te ñun ñoo leen ëpp suuf pourtant mën nañ bay fii ay pomme ak ay mandre waaw nan nañ ko defal bopp mais marocain yi dañ koy bay foofu indi fii duñ ko jaay màggal Tuubaa gi weesu ni pomme beeg mandre yi du ci ëpp Maroc la jóge waaw am na ni jafe-jafe ndax kenn jàppale wuñu te bëgg nañ ku ñu dimbali jàppale nu na jafe-jafe ci yoon am na jafe-jafe suñu kaas bii amul matériel amul docteur amul yenn làmp yooyu yëpp am na fii jafe-jafe ku fi jàpp ñu di la yóbbu ay saral la ñuy takk di la yóbbu bala ngaa yegg ci yoonu mën ngaa mucc ci yoonu loolu mën na cee xew loolu ba tey suñu jafe ci kaas bëgg nañ ku ñu ci dimbali bëgg nañ tooli noor ku ñu ci dimbali defaloon ab pompe suñu teen bee ba mën caa liggéey ndax sonn nañu lool te kenn géesuwuñu nag dañoo bëgg mbayum noor te mbayum noor fokk dañ ñuy jàppale defaral nu ñagal nu ay bariyeeral nu ay tool defal ñu ab pompe ca teen ba mu mën a génne ndox mu neex muñ mën a roosee. ci wàllu faj bi bu ngeen tawatee fan ngeen faj. wàllu faj gi la ñuy fajoo ji. ñaata kilomètres la. treize kilomètres. ci yoon wi baax na. yoon wi danañ dem ba Baylaada doog a yëg tali waaye ñun raaraan lañ am amuñu tali bëgg nañ ku lu jàppale ci ambulance boo xamante ne suñ jaaxle dañ cay mën a dugg bu mënta fajoo fii dugg ca dem fajoo ji Taïf Mbàkke wàllu financement bi ba tey am nañ ci jaaxle ndax kenn joppalewuñu ci financement bi. dañ koy dégg ci réew mi waaye ñun kenn joxuñu ci suñu monsieur le maire nag ba tey ñoo koy sant ndax moom ba mu toogee ba tey wax dëgg lu mu ci ñun mi ngi koy defaa ñoo ngi koy ñaan mu dolli no wax dëgg yàlla moom mi ngi ne jàppal ndax suñu làmp yi sax bu ci yàqu suñ ko waxee dana fexe ba lijjant ko ñëw ñu defaral nu ko lépp lu mu yëg ci ñun it dana solo daal lam ñëw waaw waaye dañoo bëgg mu gën noo dolli lampe solaire yi ñuy dégg bëgg nañ ci ndax ñun dañoo yor jur di sàmm lu ñu suturloon ñoog suñu doom te bu guddee lampe courant bi coupé saay saay si dugg jël suñu jur am marché bëgg nañ ci ndax amuñu lu ñu liggéeyee dañoo bëgg ku ñu financé defaral ñu am marché ñu mën cee toog di ci yëngatu am ci lu ñu suturloo ñoog sunu njaboot. sonn nañu daa mel ne dañ na fàtte communauté bépp nag laay waxaale waaw bëgg nañ ku ñu jàppale. jërëjëf mbokk yi loolu leen seen site de communication Saxum Touba point net wala Saxum Touba TV indi loon ñu doon nemmee ko waa kaw gi ak seen dundin mu mel ni liñ fi dégg nag doy na sëkk. ab jàmbat ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi bu fekkee nag foog nañu ni ñoo ngi liggéeyal Sénégal mel na ne que Sénégal ñoom jàpp nañu waa kaw gi ñi ci taax yi rek ñoo gis li nga xam ne mooy jëf ji nga xam ne kilifa nga nguur gi ngi koy jëf mais kaw gi bëriwul leen ci dara moo xam mu ci wàllu mbay mi am na lu bari lu ci sooxee wàllum kaaraange gi am na lu bari lu ci sooxee wàllu jumtukaay ngir yéwénal aw askin aw nekkanam ñu koy wax infrastructure sociaux de base mel na ne kat àll bi na ko ñu ngi ko tumuranke fii ci tubaab Touba Bombali ñu na ko tumuranke ci gox yu bari yoo xam ne ñoo ngi nekkee kaw gi ci biir Sénégal mu mel ni nag Sénégal bu fekkee dañu wax développement boo xam ni ku nekk da cay gis sa bopp Sénégal gu yokk koo xam ni foo mën di nekk ba kiri korote war nga cay gis sa bopp mel na ne waa kaw gi ba kaykat nee nañ ay dégg rek la ñuy am timb mbulooru waxe kese nag mel na ni ubut làmb comme ni ñuy wax galgalu kese ubut làmb bu ñu sañoon nag lépp luy politique ak programme bu ñuy nasati nañ ko waxee ñu defee ko noonu fii nag ci Touba Bombali ak li ko wër askan wi ay jàmbaar lañu seen suufus maam la ñu bëgg a sàmm nekk ci seen dëkk dekkil ko bala moo gental toog tey seen suuf balaa ñeneen ñu di ko foq ci seen loxo comme ni mu amee ci yenn gox goxaan yi ngeen ci réewum Sénégal nag. foo toll ñu ngi dégg coowal suuf lu ko waral ay gan yu jóge bitim réew ñu fas yéene lëkkaloog seen doole ak seeni pexe jënd suuf si ci ñi nga xam ne ñoom moom suuf si mu mel ni nag jot na sëkk ku nekk delluwaat ci sa dëkkum maam jàkkil ko toog téye sa suufu su maam état bi nag ñoo leen war a jàppale ba loolu nga xam ne kat mooy bëgg-bëgg boobu mën a nekk Sénégal jëm ca kanam àll bi bu jëmul ca kanam pour Sénégal jëm ca kanam meneen dana jafe lool jërë ngeen jëf. alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifad bifrodin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي